من خمسة أركان في الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأسويلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي دقلو أكد سيطان حديث دي noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan sunu boroom mawlaana tabaraka wa taala mu boole nu jéggal sunuy jaamu yépp mu nangul nu ko mbokk yi xadisu tey bi muhammadu bnu maslama yàlla na ko yàlla gërëm ci moom la soqee ko mu jële li muy bëgg a wax ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xadis bi ibnu maaja ak tabaraani soloo ko bokk na ci ñi wéral hadith bi cheikh albani hadith bi di wax ci luy wat ci walu labat l'islam maye gu mu maye so bëggee jigéen pour denc ko ngir mu nekk sa soxna li wolof naan nga baña jënd jaan ci pax l'islam may na la nga dem gis ndaw si xool kanam nga na mu mel xool loxo ya na mu mel point kanam nga na mu mel loxo ya na mu mel xool bele yàlla doon la wax doon ko wax yenent bi ne ko wa qul a muminina yaxuddu min absaarihim waxal jullit ñu góor ñi nañu sajj seeni xef ba bu ñuy gisee jigéen ñu wàccee seen gis bañ koo xool ba mu jeex kiy yi may nañ ko mu xool kanamu ku jigéen ka ak loxoom ba xemem ko soog di ko takk Muhammad ibnu Maslama nee na dafa am ndaw soo xam ne dama ko doon labat mais ndaw si nag dama ko rusoon mënuma janoog moom xool ko ni ma daan def dama daan bàyyi ba ndaw si nekk ci tàndarmaam ma dem làqatu di ko seet di xool ndaw si bu nekkee ci toolu tàndarmaam yi ma dem làqatu pour mën a xool ndaw si ndax jekk naam jekkul bis am ñu ko gis ne ko ah atafaalu hada wa anta saaxibu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko atafalu hada ndax da ngay def li yow muhammad ibn maslama wa anta yow sahibu rasulillahi yow yaa ngi ak yenen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu jàngal la nga jele ci mom li nga jele ci mom ba nopi ngay neubatu di xol jigen mu ne len dama degon ci yenen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam muy wax ni ida alqa allahu fi qalbi mriin xitbata mraatin xitbata mraatin fala basa an yandura ilayha yenent bi dafa wax ne yàlla bu tàbbalee ci xol xolu góor yàlla tàbbal ci xolam mu am ndaw su mu bëgg bëgg koo takk di ko labat yenent bi ne fala basa aayul terewunu interdiwunu an yandura ba ndaw waaj a xool an yandura ba waaj a xool ilayha jëm ca ndaw sa lu koy xemem loo ndaw sax ngir mu denc ko comme mu nekk soxnaam terewuñu ko danga gis jigéen ba koo takk ndaw si nga bëgg a takk lislaam may na la nga xool ndaw sax ba xemem ko ngir takk ko yeneen xadis yi yonent bi daf daan digal sax góor ñi ne leen su nga demee di labat yi rawatina jigéen ñi dëkk lansaar na ngeen xool bu baax seen kanam ya rawatina seen bët ya ndax dafa am ñun ci bindee ñu am bët yu tuuti te bët yu tuuti nekkul taar ci jigéen léegi nag xam nga bara barabu taar Omar ndaw si bu fekkee ne bëgg a xam ndax rafet na wala rafetul dong moom moo la ci dugal pour takk ko xam nga bu muuroo jarul nga naan ko dindil sa muuraay wala ngay xool yeneen parti ci yaramam gis nga kanam ak ay loxo ku xam jigéen soo xoolee baaraam ya xam kanam nga dana xam danga xam jekk na wala jekkul waaye malheureusement léegi waxuma la xool kanam mais xale yu jigéen ñi Omar léegi dañoo xewal natt dàll ñu ne daal dàll mooy lan mooy léegi jamono ji wóoru rek nga dem gis góor rek dem sa ak moom noonu te xamoo ndax góor gi mën na dara wala mënul dara kon il faut da ngay natt dàll xam góor gi lu mu mëneeg lu mu tële man leen waaw ku natt daal la ba dàll ya dagg foo jëm même loolu jigéen ñi wax tamit góor ñi loolu la ñuy wax ne du ma jënd jaan ci pax du ma jënd jaan ci pax mooy ndaw si daal balaa maa dugg ci moom pour takk ko il faut naa xam ndax mokk na pooj wala mokkul pooj man na boppam wala mënul boppam ci yenn yi ndax damaa bëgg jigéen ju mel nii mel nii ba daray ndaw sa dootu la umpati ci yaramam loolu laay wax ne du labat mais mooy lañ bat waxoon naa leen ko ci ginnaaw ne leen nañ ràññee ñaar yooyu lislaam labat la digle mooy ndaw si bëgg nga ko waxuñ la rek demal bul ko xool xoolal ndaw si kanam nga loxo ya ndax jek nam jekkul l'islam mayna lako waye nak waaye ñu dem bali kaa ñu sorti ndaw sa waja simeku simeeku ñu dugg ci ndox ma di sangu lepp ndaw sa nga xam nu mu mel lool dafa haram l'islam diglewu wuko waye lula la xemem lo ndaw si ci xol kanamam ak loxom lool l'islam mayna la ngir nga xol ko yi hadis bi ci lool lay wax muhammad ibn maslama ndaw soosu mu doon laqatu diko xol ci tandarmam ya ñu naan ko lii ngay def nii te nga ànd ak yeneen yenent bi ndax war nga koo def mu ne leen déedéet aayul yenent bi lii lañu diggal ndax dafa wax ne ku bëgg a labal ji labal jigéen aayul nga xool ndaw sax lu la koy xemem loo loolu dagat na waaye yeneen ya ca des nag caaxaan yi dem moy baali fecci dugg ci ndox yi sangu yooyu moom xamee su ko ci labat loolu lañ bat la labat amul wéetaay na ñëpp toog ngeen toog waxtaan ba juboo tabaarakallaahu alxayri jib ci seen diggante loolu la lislaam digle mbokk yi li moo nekkoon xaddisu tey bi yàlla na yàlla defal ñu ci dégg topp defal leen ko dund ak dëkkuwaay waaye koddaay yàlla yombalal nu ko may nu fa nu gudd wa ànd ak wér gi yaram defal nu mujj gu rafet yombalal nu sunuy càkkutéef yëpp fajal nu sunuy xaaju yëpp jàmmi àdduna ak jàmmi alaaxira yàlla ñu ko yàlla defal wërsëgal nu ba ñeme ba koy wujji ñu yóbbaale kalimatu laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yàlla defar suñuy ya affaire yokk sifur chiffre d'affaires yaram bu sedd bu ànd ak xol bu sedd yàlla may na ko Omar Samb moo nu nekkaloon ci caméra bi seen mbokk Oustaz Makhtar sar ci hadis bi ba suba ak jàmm incha allahu taala ñu dikk ak yéen ci beneen hadis wa بخشوعي بني الإسلام على خمس